asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum waa àdduna ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di am mbégte kontaan teewaat fii nga xam ne mooy leeral TV leeral point émission aada ak cosaan di ko def dimanche bu jot 15 h ci ànd ak ki xam ne mooy suñu nijaay suñu xarit suñu tonton muy tonton Ngari ñuy nuyu waa àdduna yëpp di nuyu kilifa diine ku nekk fa nga nekk fekk nañ la fa jox la suñu loxo sukk sa kanam nuyu la ziyaar la ñaanal la jàmm di ko sàkku ci yow noonu la ñuy def dem ba ci lalu hôpital di ñaanal maladie yàlla fëgg seen bopp ba ñu delluwaat ci seen njaboot mais noonu la ñuy def di ko ñaanal sage-femme yi médecins yi ak képp koo xamante ne rek jamono bi yor nga malade ñu ngi lay ñaanal yàlla may la xolu muñ may la njaboot boo xamante ne ni mun nga yor malade ci barke Seydina Mouhamed di dem ci ñi nga xamante ne ñooy homme de tenue yi bàyyiwuñu kenn suñ ko waxee li ko commencé gendarmerie ba ci sapeur ñu leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci jëm di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi ci àdduna rek nuyu nañ la sant la gërëm la ñaanal la di nuyu ñi nga xamante ne ñoo safoo seetaan leeral TV leeral point net ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ndax kenn amul seen fay defe naa ne kii wax ku ko déglu bëgg mais ki ku ko seetaan la bëgg ba tax na yéen ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax di am mbégte bu baax a baax émission aada ak cosaan ñu koy def fii dimanche bu jot di ci ànd suñu xarit suñu tonton tonton Ngari maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yaw waaw Mame Malick ñu ngi suuf ba ci directeur ba ñoom ñun char ñoom ñëpp ak téléspectateurs yi nga xam ne saabu na ñu ngi koy seetaan ak ñëpp li nga xam mënuñu leen a lim te saabu nañu bàyyi nu xel ñun ñi nga xam ni euh, suñu jëmm yu matadi euh, di wax rek nag te yàlla mën naa def it xëy na li ñuy wax juum ca waaye ñu ngi koy jéggalu waaye yéene bi nag mooy am wax lu baax ñun ñëpp di bokk ko. kon nag ñu ngi santaat yàlla sama borom di la nuyu baax nuyu Babacar nuyu sunu jarbaat bi ak képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel fii ci Leral TV Leral point net jazakallahu xeyran jaajëf euh, tonton Ngari ba tax na ñuy am mbégte ci nuyoo bu set bu sell boobu nga xam ne jàllale nga ko fi ñu lay ñaan yow tamit lépp loo fi wax rek yal na dugg ci xel yi bu baax a baax a baax mais ñuy nuyu ki nga xam ne mooy Ndeya di ñaanal yàlla fëgg boppam ba mu fii nga xam ne mooy Leral TV murit ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax a baax moom tamit dawkat bi murit yow da ngay daw ret waaye du ñu bàyyi ñenn ñi nga xamante ne nag ñoo nekk fi nga xam ne mooy Leral TV di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax teew fii bëgg a waxtaanee li nga xamante ne moo di njiit tonton njiit tey nan la war a mel. waaw di te ba am solo ñu nuyu lu baax Ndeya Ba ñaan yàlla mu rejoindre ne balaa yàgg ci plateau bi allah ak Mouride ñu ku nekk yaa ngi benn yitte suñu par rek daañu rejoindre incha allah ci plateau bi nuyu Matar Sakho bu baax a baax waaw thème bi ngeen indi tey dafa am solo damay euh, wax ni reer bu doxee guddi waxtoom la. dañoo nekk ci jamono yi ñi bëgg jiitu gis nañ ko ci lu bari mais boo ko généraliser dafay passé force sax foofu ñu bare bëgg a doon njiit njiit yombul léeg-léeg ñu xeeb njiit ca kàddoom xeet ko cay jëfam xeeb ko ca nekkinam te fekk ni moom dafa rekk bëgg a jiitu waaye bi ci jiitu mooy yàlla moo koy tànnal boppam yàlla mooy tànn jiit caat dina mën a mujj juddu ci kër jiiti kër ga taaw dana mujj dana njëkk a ci kër jiiti kër ga da gis coow yi ci jàkk yi ci jumaa yi ci coowal imaam coowal nguur coowal lu baree bari mais jiit jikko ji njëkk ci jiit mooy nga gëm ne d'abord yàlla moo la jiital kenn jiitalu kenn damay dégg ñu ñoo fal diw ku doon fal keneen fal sa bopp maa ngi fal ko takk ci yow ñun falewunu yàlla mooy fal nit kon yàlla moo fal njiit kon bu yàlla falee njiit ki bëgg a noppalu day ànd ci njiit loolu yàlla fal mais coono yi indi nit ñëpp mooy boo àndul ci njiit li yàlla fal coo njiit li metti nag mooy njiit li bëgg a fal boppam te te yàlla falu te nag loolu tubaarkaal moo bari ci réew mi ju bari ñoo bëgg a doon njiit te yàlla jiitul leen donc njiit war naa doon damay dégg ñaan dafa tëddee njaaxanaay su da njaaxanaay bu la waree doo jóg njaaxanaay bu ñëpp yéegee si kaw foo jëm doo jóg déedéet njiit day toog yaay yi seex buy nàmpal léeg-léeg ay téye ngi ay liir toog te sax moo gën a jekku waaye léeg-léeg bu jaaxaane nàmpal nelaw lii di mën nañoo fat da ngay toog njiit wootu njaaxaan da war a toog ni doj du xoole bañ a nelaw parce que fam lu ko yàlla dénk moral kooku dafa bokk ci da parce que waxee senegal la njiit day tëddee njaaxaan ay déedéet ñaareel bi njiit dafa am fulla bul seet ko la mere seetal ngërëmul yàlla ci lim la jiite boo seetal ñu la mere léegi doon naa fekk njiit du nay waaye rek day joxe alal ju moom lu ñëpp bokk bu la ko dénkee amoo droit jox ñi bàyyi ñee loola di njiit la njiit du fen boo fenee fenaale ñu bari ndax dañ laa gëm la nga wax la ñuy wax dëgg la ku ne tasaare ji ko te fekk du dëgg léegi nag ku ne demee ni man kat sama njiit moo ne man nangam ñu ko waxul dëgg léegi yéen ñëpp dugal nañu ci ak ak fen njiit du naafiq bu naafiqee lor ñam àndal parce que daa am ku muy faral ku muy bàyyi te njiit warut mel noonu. njiit warut soxor bu soxoree gaañ parce que ñi ko wóoloo bari tax dégg nga dafa boo tax bu ne diw jiit la rek war ngaa war ngaa tiit ni est-ce que comporté woo naa noonu. njiit balaa wax daa mujj maanaam kàddoo mhm. ndax moom la ñuy yóbbu moo tax parfois boo xoolee ay mitin nag yenn waxtaan yi kilifa gi mujj wax. waaw kii mujj wax moo moo mujj ci ay kaddu kàddu yooyu mujj ci nopp ku ne moom nga yóbbu waaw bu fekkee wax ji du rëgg nag su fekkee wax ji day lor nag su fekkee wax ji day jaxase nag fu nit ñi jëm loolu nag moo nekk ci réew mii moo toj Sénégal moo tax lu bari di bennu problème yi di am parce que njiit yi yi bëgg a jiito su ma la fi may jeexee bu ma la bu ma la mayee tuuti nga xam ko ci élection présidentielle yi ñu jëm 2025 yàlla ñu ko fekk ci histoire du Sénégal c'est la première fois 263 candidats ce n'est jamais vu benn ngaari bu yeewoo këram rek ak bëte bi tax classe yow mburu ndékki sax ba ko ci kër gi naan dama wuti parrainage parce que dañ maa a man dama bëgg jiitu waaw jée jooju fu nu mujj quatre-vingt-treize candidats waaye ñi segg am ful la ci watu bokk ñëpp dañ leen seppi teg ne ñu dem foyi parce que jiite réew waaw ku mu tudd sa kër rek jiite réew kon nag nañ xoolaat njiit yi ki di bëgg a fal nañ yàlla fekk mu ñu ànd ak dogalu yàlla baax parce que yàlla du juum de yàlla ak xam ku muy fal ku mu fal dëgg la kookoo dul juum du naa féq lu mu wax dëgg la lu mu bëgg a dëgg la lu def dëgg parce que moom moom lépp fépp ak ñëpp kon nañ tey ci njiit njiit jafe na maam ma dem ak jafe macha allah tax na njiit dafa nekk loo xamante ne nii lu jafe la mun naa ne tey émission bi yëpp sax tonton yi wax na ko damay fayu ndax fii laa toog mun naa ma da ngay ah conférence. waaw da ngay conférence waaw tey nag gis nga waaw tey maa ngi nii. <laughs> dama koo laaj wax na ma léegi émission bi yëpp. kon xamoon nga ni dinaa fayu waaw <laughs> ah, doy na waar ba tax na kon yàlla yàlla di jubal tey leeral ba tax na képp koo xamante ne jiital nañ la rek xoolal bu baax ni ngay defee ndax li yées mooy puso bi mujj ci sa loxo nga damm ko hmm. kon defe naa ne ku ñu jiital sas nañ la ku ñu jiital rey nañ la ndax jiit dafa metti doo jàdd yoon doo farfarloo doo làq doo def dara tonton Ngari tey bu ñu waxee ci njiit tey tonton Ngari ndax njiit dina naa féq déedéet du naa dafa war doon ku jub ku jub léeg mu des ak yàlla la nit di daw ci ñoom mu jox leen ku des ak yàlla sans borom parce que yàllaa ko def nit mais njiit loo xam ne moo la gën a bëgg oto bu rafet bu dee góor moo la gën a bëgg jeeg bu rafet gën laa bëgg kër gu rafet gën laa bëgg xaaj bu bees gën laa bëgg yàpp wu duuf ah yow mi topp ci am nga problème parce que yëpp nitu ko bëgg waaye ah, moom da koy àgg mu bala kooku nu mu lay jiite njiit day nangoo ñàkk jox ñu topp ci ma fekk ñaar ñu xuloo mu laaj ñu xew ñu wax ko ko mu ni sawaay kaay nga ñëw mun la yaa tooñ du ma ko wax ci nit ñi kat yaa tooñ. dem ki tooñ moo la tooñ waaye nga la baalu nga baal ko noonu la njiit di mel. mais njiit bu fare rek musibaam te di am ci kër yi. say doom sax dañuy xuloo nga ka nga ci gën a bëgg sa sëriñ nga ko tuddee wala kooku ma a tuddee moo ngay faral même bu tooñee naa fiq la. dëgg la naafiq la ba tax na euh, dañuy daal di dikkaat rek ci li nga xamante ne moo di leeral TV leeral point net émission aada ak cosaan ba tax na buñ nee cosaan rek ku nekk xel yi day daal di dem fu sori da ngay gis euh, njiit boo xamante ne day nekk ci koñ moo xam chef de quartier la moo xam maire la ci dëkk bi moo xam lu mu mën a doon ba ci chef de village sax dañuy jël loo xam ne jox ko ko pour mu séddale ko as abu askanam mais tonton Ngare da ngay gis séddale bi bii bukki bii nduur bii sàmba mm-hmm. ndax loolu dagan daganul loolu moo mën ci réew mi nag man lañu fal maay seet kama neex ma jox ko moo tax gis nga Ndiaye yebal xiyaam dana xumb boori trois heures jëm six heures courte mm-hmm. courte dana bari trop parce que ku nekk dana la yàlla njiit nga dana la sàmm nga dana laaj la nga sàmmoon mm-hmm. moo tax bu nit ñi bëggee gérer ay nit problème a ngi noonu nigil ba mën ko parce que bu fekkee ab kilifa nga ak fu mu doon wax xam maire comme ni ñu ko limee ñu jox la ngir askan wa te mu leer ni lii ñëpp mun ñu ko jariñoo def ko leen lu ñëpp jariñoo jox nañ la deux millions deux millions bi dajul waa dëkk bi boo ko séddal kenn ku ne téeméer ren ba ko jariñ def ko robinet mbaa nga def ko mbaa nga def ko làmp na na jariñu ñu faaw boo ko defee chaise léeg ko ab dugal kër mu di waaw ko damm ni kenn moomu ko moo ma neex ci lañ bokk mais boo dee am làmp ne ci digg dëkk bi dëkk bépp leer bu dee robinet ñëpp loo root yàmm ni mais boo bëggee ne sama jar baat kumba wa ma faal ñoom dong ñoo koy akimoo naa fiq nga yaa ngi tooñ moomoo moo ko mm-hmm. dëgg kon nag wax dañoo góorlu ci moytu di jiite surtout maam ma rek nga taxaw ci minbar mm-hmm. doomu aadama yëpp toog mm-hmm. di julli jumaa waa kër Macky Sall nga fa. waa kër Ousmane Sonko nga fa. waa kër Karim Wade nga fa. waa kër Babacar nga fa. waa kër Ndeye Khady nga fa. ngay xas leaderu jàmbur. bokkul ci maandu. léegi nga toog ci jumaa ba yaa gis ku ne bërëb dal kurusam lem si jaadaam dem. parce que da ngaa laal kam bëgg. tegoo ko fenn. loolu taxul nu jiital ci sunu karamu minbar bi wax nu yàlla neen xaala laaw. xaala Seydina Muhammad sa julli bu yàqoo nii ngay def bu sa koor bu yàqoo nii ngay def nii ma loolu lañ soxla mais bul xas leaderu jàmbur bokkul ci maanu te loolu nag jumaa yi bari moo fa nekk njàgg du ma wax lañ ma parce que moo am sun la jege ci kanam minbar bi jàngal nu yàlla jàngal nu ñuy toppe Seydina Muhammad nekk lañu bu dee màkk nu ñu ajee lool lañu soxla ci yow mais bul laal leaderu kenn parce que xoolu jàmbur la wala nga laal tariixa kenn xoolu jàmbur la tegul fenn loolu bokkul ci maanu kon nag loolu problème la boo xam ne mi ngi ci réew mi ko war a dëgg euh, mu ngi ci réew mi ba tax na dañu koo war a daal di dindi ba mu set wecc faxas ko fi ndax kenn du xas askanu kenn kenn du xas mbokk kenn kenn du xas yaayu kenn ndax koo xas famille rek wala koo xas ki taq ci moom wala ki nekk ci xolam rek da ngay daal di gis jikkoom su la mun wan jikkoom ci saa si tamit dina am lu mu la jàppal ba tax na ku nekk rek del bàyyi sa xel bu baax a baax ndax njiit dafa metti soo jiitoo di nga dégg lu ne di nga gis lu nekk mais da ngay tànqam lu njiit def lu mu dégg tontu ko njiit def lu mu mën a faj faj lu ko neex def maa sama dëkk rek heure bu ma neex laay nodd amul fenn da ngay tànqam lu da ngay jël lu ñu war a jëlale lu ñu war a jëlale da ngay tànqam lu ñu war a tànqam lu soo gisee loo xam ne lii ay la ba lay indi fay ko ca ba muy teel nee toog noppi wala nga ñëw fal leen ma damaa bëgg lii ba ñu jiital la yow ña la jiital noppi nañ laa gis dëj du am ba ñu gis la kenn du am soxla ba gis la kenn gisatu la lu dul nga soxlawaat leen suñ la xasee ba fal moo xam dëkk bu mu mën a doon pare nga fa yaa nga ca ndakaaru njaay toog wala nga génn réew mi dem toog di noos nu mu la neexee est-ce loolu moo taxoon ñu fal la est-ce loolu moo taxoon ñu jiital la dañ laa jiital fi ñu la jiitalee nga nekk fa mais la ngay defee nu la neex tonton ngaari jiital boobu day dem ba ci fi nga ne ay société la day dem ba ci kër day dem ba ci garage dangay gis njiit loo xam ne moo nekk ci garage bi lu ma neex lay def ku mu jot dóor lu ko neex wax nit toroxal doomu aadama ba kooku ne tott ndax lan moo fay kilifa moo fay njiit ndax loolu dagan na daganul loolu rëy dafa yàlla yàlla gërëmul ak rëy parce que ak yàlla rek ko yeyoo ndax moo man lu kenn mënut sañ lu kenn sañul di wax lu kenn dul weddi mais nitu kese sañ tu rëy maamu sama dëkk nag ku ñaaw marraine bi lay dëkk ba wéet kenn da ko tegul fenn eh, Sénégal nag parce que li may wax toujours Sénégal laa mën a tudd parce que fi laa dëkk te loolu laa fiy gis gis nga maam Marème ñii xëccoo réew mi boo leen dajalee ñoom ñëpp laaj leen population sénégalaise bu ñaata la ku la ci wax desal mbaa mu ëppal maîtriser wuñu ko wax leen administration sénégalaise ñaata lañu duñ la ko wax ñaata policier fi am ñaata gendarme ñaata douane ñaata militaire am réew noo ko bëgg a yor te xamoo ko déglu leen campagne électorale bi su ngeen ma falee ma defal leen waxi naa fekk la su ngeen ma falee ma ànd ak yéen nu defal réew mi loolay wax ju yow da ngaa am lu matu kër ga togg waañ bi boo fóote tilimee fóotu la sa bopp di kara yi ménage soo ko di du yow ndagam sa kër nga mu tuddee lépp asuma gam réew da ngay wax su ngeen ma falee ci kàttanu yàlla ma ànd ak yéen defar réew mi loolay wax parce que loolu muy soulager aw askan su boobaa da ngay diisoog ñoom bu la yàlla falee ngay nguur ah maam Marème loo xam ci wàllu jën yeeg yooyu ngay nangam ak nangam ah jànq loo xam ci école bi mu ne ah nañ corrigé nàngam nangam Babacar loo xam ci presse loolu la ñu concerté woo su ko defee da doon njiit lu woyof mais njiit du deng dengaaral koo gis njiit du deng dengaaral xam-xam ba bëriwul loolu lay mottali ko njiit du deng dengaaral xam-xam ba bëriwul lay mottali ko eh, ful la jooju mu jaay te néewul ci moom mais wax li ma la wax sànq laa lay waxaat yamal ca boori quinze heures jëm dix-huit heures dina macha allah parce que dañu koo xam ni fexe woon na ba jiiti nit ñi fa laaw alhamdulilah lu mu xoo dara du ci dëgg yaataayum rek la bëggoon ndake moom di def ko mooy njiit am na ñoo xam ni bés boo dikkee ñu ne am na ko gaañu xam lu lay njëkk laaj ndax wax nga ko Babacar nga ne waaw na waaw man gis naa loolu barke alxuraan gis naa ko koo xam ne moom lu xew ci fay maanaam moom moo ko njëkk a moom boo nee wax naa ko maam Marème pare na ci du ñëw may gars yi di kaas ma leen dit moom loolu lay mottili ko dimbali leen ko loolu même bu ko ñëpp yëgee ñu ko kenn yëgu ko yaa ko njëkk a yëg ndax mu tax a ñëw parce que moom du ca def du ca dindi waaye na sol xaftaanam rek ñëw fu ne ma xool fa may leen ko xool ba kooku d'accord na ak moom moom daa bëgg jiite te mënul waaye leen ko dimbalee loolu waaye tey par force ma jiite leen ñun la waa Louga ñaata la nga waa Louga ah yaakaar naa ay quinze ak yooyu de bul jiite. toppal ci gannaaw rek toppal ci gannaaw rek. <laughs> macha ba tax na nit ki loo xamul lekk bul ci daal di dugg kon nit da ngay def loo mën wax loo mën soo tëddee nga daal di nelaw ba tax na baabakar bu dee jàppandi na rek dañuy indil benn élément ñu desiwaat fii si plateau bi. man maa ngi tudd Pape Cissé. waaw ak lan mooy ah, maa ngi leen di nuyu di leen waaw comme ni nga ko waxee rek njiit dafa war a tëddee njaaxaanaay boo tëddee boo gisee ñu naan njiit a tëddee njaaxaanaay mooy ku ñëw ku ne danga ko mën a accueillir jël ci xelam boole kook sa xel nga jaxase mélangé boo ko defee da nga mën a ànd ak moom te boo jiitee da ngaa war a yaatal te boo yaatalee rek ku ñëw dañu si xaj ku ñëw danga nga ko mën a boot ndax njiit dafa metti waaye nag yow mi njiit yow yaay ànd ak sa cent fois yor sa discipline ku ñëw nga yér ko waxtaan ak moom ba am li nga bëgg ci moom noonu la nit war a mel. waaw. waaw. amul droit def erreur amul droit ki am na xaalis ki amul xaalis dafa war a boole ñëpp rek yemale moo tax ñu naan boo jiitee da nga war a njaaxaanaay di jaajëfal tonton Matar Sakho ci élément bu am solo boobu nga xam ne moom la ñu jëlee di woon waaye ñuy ziare ko nga xam ne Cissé la sant Cissé Njarmeew ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax Pape Cissé ci wax ju am solo jooju nga daal di wax léegi si rek tonton Ngari dégg nga li waa ji wax muy Pape Cissé lan nga ñu ci mën a leer. waaw ñu ngi koy nuyu moom it euh, c'est un artiste bu nekk yoonu ndaw. ñu koy nuyu nuyu Lamine Cissé ñu nekk ca groupe ba ñëpp wax na wax ju am solo. njiit dafa yombul te ñëpp ko bëgg. wax yàlla tey boo doon def fal chef de quartier xeex sa da cee am ndax xam nga ko dem ba xeex ci jumaa li waa doon wax ngum néew mi danaa ngi ci. bu demee ba jumaa kaay ma jiital ay kurbañ da tàkk am na lu xew ci suuf que da ko jël kaay ma jiitale baa nga ma mbaa ma rey la ah waaye am na lu ca ne kaay ma jiitale waaye waaye bu ngeen ma bëggut a jiite ma dem sama yoon ndax jiit yombul waaye tey moom danaa leen jiite wala ngeen rey mbaa ma rey leen non nañ seetaat loolu am na lu ca ne. dafa am na ne ca gannaaw luy puus baa boog lu ca ñor lu ñu war a lekk yóbbul xool nga doon président de la république ñëpp di nelaw yow doo nelaw président bu la wax danaa tëdd mbir yi du dëgg seen gin ngaa teel tëdd quatre heures du matin ay réunion vérifier ay documents ay téléphone ba quatre heures nga gëmmus bët sept nga jóg sa dund famille sax day des parce que amuloo amatootoo lien boo ak sa waa famille proche parce que du bari foo jëm ñu ngi lay garde sooy wax ñu naa président bay wax tey de le trois déglu leen ñëpp di noté déglu la mais loolu yombul war ngaa doon nit ku mat eh, maam rek bi Sénégal soixante léegi waaw sol yàgg na mais bi indépendance am léegi ça fait soixante trois ans juróom benn fukki ak ñett ñeenti président la ñu am yàlla du como du tànn n'importe qui pour def ko président déedéet président yàlla du tànn ko soxor du tànn ko amul xam-xam du tànn ko amul gis-gis du tànn ko doyee bi ne ko nit ñi xam xoolal Senghor ak jaar-jaaram Abdou Diouf xoolal fi mu jaaree gouverneur ak ñoom préfet ak nangam nangam ba doon président Baye Ablaye Wade deuxième avocat du monde opposé vingt six ans ak fi mu jaar lépp Macky Sall dafa raafale lépp directeur général ba président la République waaw dañuy xëy subu rek woo benn ngaari ñëw taxaw ñu fal ma président ma ma takk ceq bi nag de non mun sa ne parce que soxlay nit ñi wax yàllaa ko mën a saafara su ma dégg courant bu ngeen ma falee tàkkal ko coono mais naa fekk weesuut loolu ñun coono na wàcc fii ci àdduna bi damay sonn ba ñuy demee yemal xiyam ku bari xaay sonn ku ñëw xaay sonn parce que loolu lañ ñu fi wàcc danoo tool yàlla mu defee defeeranu fii ci àdduna tabax bool noo ay weñ ay yambak lu ne la ñu boole lu ñuy mat parce que daf noo yar ba yàlla daf ne ba ngeen maa xam bala ngeen maa xam leen ma ah yi nag su ma may dina doon président dut leen benn problème nga am problème bu yéeg yow am problème doon président yow nit ñi est-ce que ñu ngi xalaat waxi nit ñi su ngeen ma falee seen coono jeex te moom mi ngi sonn pour doon président bu dul nit ñi doo ko doon ci gën a dogal yàlla bi foofu la nit ñi war a gaare kaare lañu ànd daal d'accord na ma ak yow ngay wax may wax loo baax ma jox la lu baaxul lu dindi ngir réew mi jag kilifa noonu lay mel kilifam yow maam ma dem boo ko tekkoon par point fii nga koy commencé ba kaw la point point ci sa solo du jeex. ci ki war a doon nga xam dafa do dafa mature fi mu nekk nii pour nga doon président pour nga doon kilifa ci kër. mais nga dem nga dem ci kër goo xam ne nga xam ne góor gii wala waa ji nga xam ne naa fekk la ay jabaram dañuy xuloo kam juróom nam lay faral naan amul ndey amul da ngeen ko yaa ñees ñoom amuñu ndey ak baay ñoom te pourtant ñoom nga ci kër mais ma nga far ak gone ga ci kër bis bu ñu gis ko moo tax gars yi dañuy war a régler ci kër yi su ma gisee ñu koy rek ci mbedd yeeg internet daf may jaaxal. man nañ def ndànk kilifa yombul. du fi mais bar sàq tax yombul. macha allah ba tax na du fii waaye barsàq moo tax te ku ci nekk rek sóoraaleel ne bu dul lundi rek di dimanche ak ci bis bu mu mën a doon jàppal ne bis dina ñëw dinañ la waajal. Mhm. moo xam ci heure bu ma doon kon ku ci nekk rek del bàyyi sa xel bu baax a baax ngay sóoraale njiit yombul. njiit dafa metti kay jiite ñu lu nee nga ca musiba nga ca bànneex a nga ca mais ku ca bànneex nekk rek jàppale ne sa boppa la ca teg mais ku ca fitna fekk rek xamal na yow mi yaa ca doxal yàlla ndax defe naa ne bu ñu tegoon fii tey lu mu mën a doon di ko séddale yow mi koy séddale toujours doo bëgg a njëkk a jël doo sotti rek nga ne bii maa ko moom de da ngay séddale parañ saay sax ki séddale day dem ba day ñàkk mais yow nga séddale bu lu ñëw yow yaa ciy ëppale sa waa kër oto yi ñuy dawal say mbokk ñëpp am nga sol say poos tabax sa kër ba mu yegg foo mën a denc nga denc fa ndax lan di profitoo yow doo njiit yow baadoo la nga baadoo la mooy doxalee noonu mooy lekk alalu jàmbur mooy jël mbir yu jàmbur di ko aaki ba tax na ku nekk rek del bàyyi sa xel bu baax a baax te xam ne àdduna du noonu tonton Ngari defe naa ne jamono bi ak fi mu toll nii doy na waar metti na gis nga jamono ji di mu mel ci kilifa yu ndaw yi la ñuy ñëw muy xale yu góor yi ndaw yi yor soxna da ciy gis koo xam ne da nga koy may soxna tuuti balaa yàgg mu dóor ba mu bëgg a dee ñëw indil la ko nga woo ko mën la peer sa doom naa nga mag sàngam est que loolu tamit kooku bu màggee nañ la war a mën a demee. daa matul njiit jàngu ko. ci këram jànguluñu ko ko dafa xëy rek gis ñëpp takk mu takk bëgg organiser wu nag du sotti mag ñi dañ daan jàngal ndaw ñi ni ñu yoree kër en sa bàyyi day toog ñaari weer du joxe dépense sas la cheikh nga naa mu ne ah, man def fan yi wax dëgg yàlla moom damay noppalu nag damaa xaw a sonn te yoruma xaalis ni pat te yor na ko de seetaan la ak sa yaay ak say say rakk ba xam fu ne nga daw fu jëm parce que booba mi ngi lay mi ngi lay namm mi ngi lay daggi ngay dem deux mois nga joxe dépense bu xëyee woo la ni la ah léegi kat xam naa ni fi dafa xaw a métti bàyyi ma teel la ceeb bi waaye diw ak dépense noonu la la ko seppile ba nga mujj ko papa teel lépp parce que boobu mokk nga mu jàngal la naka ngay gere kër parce que da nga gis sa yaay tontu ko benn tontu boo xam day ree jug dem tamoon na ko saafara yëpp mi ngi lay won ay bunt loolu boo nee ba yor kër nag da xam ni warut li ngay bëgg a def nii parce que boo dooree jigéenu jàmbur pourtant sa jigéen a ngi barab néew doole ma tax nga dóor ko parce que dóoroo sa morom génnul ci kër gi tooñ kenn yow la tooñ baal ko te jox ko responsabilité la loolu tuñ ko gars yi parce que léegi ku ne ci internet saaga ndey sëriñ si saaga président yi saaga procureur saaga juge saaga kooku bu la dinaa gérer sama kër day saaga waa kër gi waaye léeg-léeg nga saaga kër ñu duumale ci kër ga bëgg ni nem doonte yaay borom kër gi pourtant doo ko nettali parce que leneen nga saag koo xam du la bàyyi nga dem moom parce que ndayam ak bàyyam jàngaluñu ko saaga du ko muñ te jigéen la pourtant gars yi li ñuy daj parfois duñ ko nettali seen yara bi ku yëpp dañ koy ci mbedd meeg internet waaye biir kër yi noonu kon nga xam ne dañ lay jàngal naka nga gérer kër borom tax muy kilifa maanaam njiit ci kër parce que boo taxee ba julli rek war nañoo xam kër gi taxaw na wala taxawul foofu la commencé nga ni eh dama ni ñëpp bàyyi xel eh déglu paa bi nee na nangam ak nangam kay mais léeg-léeg ñu dama ni ñun waay continuer waay du ci xale yi de yow la te ngaa am bakkar segoo yooyu def ci kër gi ba nu xeeb la xeeb nga yaayu kee naw yaayu kii yëkkati yaayu kële suufel yaayu kii da nga suufel seen ndey rek xeeb la yow mhm. parce que da ngaa matadi ak njiit loolay problème bi mhm. macha allah ba tax na wax ji day daal di am solo lool ci ni nga ko waxee waaye dañuy dem ba fi nga xamante ne mooy nouveliser di fa ziyaare suñu benn soppe suñu xarit suñu tonton suñu lépp tonton ngaare muy koo xam ne dafa safoo seetaan leeral TV leeral point net muy Eumeudi mu ngi nekk foofu nga xam ne mooy nouveliser di jàmbaar di gor di garmi rakk Ami Samb di jaay ay ginaar yu baax foofu ñu ngi koy ziyaar bu baax émission bi di ko tardé dimanche bu jot day toog si néegam seetaan ko ba mu yegg ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax di ko ñaanal jàmm mais tonton Ngari pareñ saa nga gis kilifa goo xam ne day yéeg ci otoom dawal def geste boo xam ne ci tali bi danga naan lii ndax kii dafa màndi wala lan moo tax muy def lii wala nga gis kilifa boo xam ne ci ni ñu koy waxee ndax defe naa ne góor gu nekk rek kilifa nga wala bëgg nekk kilifa ndaw ba si yàgg nga wàcc ci oto bi taxaw jëw ba ci miiru jàmbur tuur fa ndox yéegaat sa oto dem ndox sax doo ko laal est loolu rafet na. kooku du kilifa du njiit ñaar yëpp bokkul du matul kilifa matul njiit kooku ku ne sax ko tane kooku dafay nit ku sàggan dafa bari ci réew mi trop moo fekk ay nit toog nga taal ci cigarette seen biir yam fekk waxtaanu jàmbur ngeen li ngeen di wax lu mu ñoo yem ak ñu wax nga ah man ne wax jooju gëwuma ko te xamoo li wax lu mu doon. yooyu yëpp nit ku mat dee koy def ak di dawal oto takkoo ceinture te kilifa dawal oto di téléphoné tey kilifa matoo njiit parce que benn petit dañ la koo tere te pourtant ñi koy tere léeg-léeg ñoo koy def ñoom fu ko teg tegu ko fen parce que ko tere yooyu yëpp nag bu dajee ah, sa njiit day matadi moo tax njiit dañ koy jàng su ma dégg ñu naan eh, kenn kenn amul amul école bi forme président de la république waxuñu dëgg école française day former président de la république école alquran day day day président de la république école adduna day former président de la république parce que ñett yooyu boo ci jàng bàyyi ba des matu mën ngaa jàng français ba ni ar anglais ak espagnol ak mathématique lépp te jàngoo adduna na sax ngay doon mais boo boole ñett yëpp ku mat ngay doon moo dal yenn président yi kon gis nga dama wax gaa yi xëccoo nguur gi réew mi bu leen tegoon tere ñu leen yéen ñëpp par kenn ku ci tabax terrain an lu euh, mu tudd Babacar lu mu tudd li ngeen def ni terrain pétanque doo ko ci gis daal. <laughs> xam nga Sadio Mané ba démb ca ca Bambalem bi def na fa stade <laughs> te gone gu mujj jut démb la def fa lycée def fa jumaa yu baax mhm. transformé Bambali mhm. Sadio maani mhm. te déggoo wax ja bari ñi xëccoo réew mi nee leen kenn ku ne loo tabax sa dëkk ndax def nga fa pétanque xam nga waxa non projet la maa ngi ci. waaw waaw. ku mu tabax terrain pétanque sa dëkk daañu la joxum réew. bi bàyyi fo. ku ne dellu ca la nga newoon ne ca. Sénégal yëpp bu dajee xam nañ ka gën ci ñoom pour réew mi point final. boo taxoon mooy leen jarul campagne électorale. dañoo war a dajale leader yëpp télé yëpp taxaw. ñu toj chaise bi te par kenn wax nu loo def ak luy bëgg a def. ñu marqué point yi. su ñu paree. léegi ñu jury bi dugg génn diw mii moo la doy bu ko defee doo yàq xaalis élection yi jeex na mu dem pale moom Macky Sall nuyoo Macky dem Mermoz mu dugg pale liggéey parce que bari ci yoo xam ne coow barke alxuraan amul ñu seen bokk njariñ amul ñu seen bopp njariñ def guñ daara ci réew loolu projet projet ba kañ mhm. projet mooy ab naal naal kañ ngay naal li dëkk ci projet rek da ngay man ka def naa stade man ka tabax naa lycée man ka def naa nangam def gars yi ne ah kii kat doonagul président moo ko def. góor a waay waaye loo nga non maa ngi ci seulement damaa nawoon ci partenaire yu mu doon wut. gis ngi Sénégal gii ñu nar a jaaxal yàlla yemal ko yaa réew mi xamul yàlla parce que yàlla xamul lu leen def xamul ndax Serigne Touba tax maam El Hadj Malick tax Cheikh Ibrahima Niass tax ñoo doon liggéeyal yàlla ba yàlla ruus xamul nu def waa Sénégal mais Sénégal gii ah, ka ñu jar a dëgg la euh, doy na waar ak a ñoo jar <coughs> seetaan ba tax na Sénégal li fi nekk euh, doy na waar fi lañ dëkk nag fi la ñuy sagoo fi la ñuy ndamoo ndax fu ñu mën a am Sénégal moo ñu ko gënal suñu sañoon fu ñu dëkku teraanga ñu ne Sénégal bu ñu sañoon ñu defaraat jukko yi Sénégal kenn du ko defar ndax heure bi daan jot rek mooy jot ba tey dara soppeeku fi kon ñu ñooy defarwaat suñu toogaay xawaat bu baax nan la ñuy defee tonton Ngaari da gis kilifa gu nekk ci biir këram moo xam mindaana ma fa nekk moo xam tamit jarbaatam la moo xam ab sëtam la ñu violé ko ci biir kër gi nëpp nëppal ko mu sedd wala ñu dóor ko fa damm ko wala dara ñu nëpp nëppal ko su kilifa ga génnee mooy dem hôpital kii ka da doon def nangam daa def fii daa def naa lay nëpp nëppal ndax lan ah su ma defee nangam ñu lii wala kii sama nangam la mënuma koo teg ci yoon est kilifa dina doxalee noonu. waaw kilifa dana dana nëpp nëppal xam ko ko sànq jëlale ñu violé nit ci kër gi te mu wóor nit di wa waaye du koo mën a yóbbu kaso parce que boo ko yóbbu kaso yaa ko yóbbu lañ léeg ñu gaañ nit ci kër gi bu fekkee fës na rek bu ko yóbbu kaso yaa cay dox kilifa dana boo ko waxtaane ñaax benn yoon mooy avertissement carton jaune kilifa soo avertir deux fois deuxième fois troisième fois carton rouge la am na xam kilifa yoo xam gaaw ñoo wax mais bu nu waxee rek exécuté nañu kilifa du bari wax dana xam ni kër gi nangam xew na fi mu ni teg ba benn bis mu woote ndaje ni daaw weer sàngam bi sàngam def ngeen nàngam fan yee def ngeen nàngam bu ñett bu ñettee rek mu exécuté parce que loolu mooy loolu kilifa kilifa soo baree wax soof ñam àndal soof réew ma soof boppam lu ñor nga wax lu ñorul nga wax da dem bayaa gaa yi kenn dootul déglu kilifa du mel noonu kilifa day xam ba ngir olof di wax tay tay lu koo gis bis lay xaar su bis ba su ne dama ne rek ñu ne ah yar naa wax de ah foofu ngay safi nit mais su caméra bi wàccee nga ne kaay leen caméra bi wàcc na fil gën a koo lonk euh, jaaykatu mango ba da nga dem ba ay nit ñi waaw kii sonal nanu ci wax te wax ju nekk day am asaka nag njaay xam nga looloo gaa yi bari nag ñu ngi ci ndugg si rek ay musiba làmmiñ leen fa yóbbu de kilifa day noppi da ngay xam ba noppi di teg waaye loo xam wax ko njiit du ko def waaw. allah loo xam wax ko njiit du ko daal def mais nëpp nëppal dagana na mais am na si yoo xamante ne nëpp nëppal ko tonton mun na indi leneen nag ndax day du ka ngay avertir mais ca kañ ko def kooku ci moom lay mettiwee ndax xale yi doy nañu waar tali bii gis nañ ko ak ni mu mel. <coughs> da ngay gis gone goo xam ne day yor jagar taawam mandi ba doyal mbaa mu tux ba xolam sedd mu yéeg ne day déraper xamoo fan la wati di ñëwee xamoo fan la oto di ñëwee si wetam xamoo lan moo ko fa mën a fekk est-ce que loolu tamit dagan na wala loolu rafet na ci xale bu am yar ñu yar la ci biir kër. xale bu am yar kër du ko def ki am yar bu la joxee jakarta bu jar 400000 xam nga benn waay dina waxtaan démb mënu ma jakarta amul valeur man ko sama bos am valeur. mun naa ma ne ko léeg-léeg mën koo jaay jëm ci nit ma nit ma ne ko nit léegi jar dix mille ñaari junni nga jënd ko nit da ko fekk ma de kër Momar Sarr solal ko ti set muy tàcc ba ngoon nga jëlal ko sandwich bu ñibbi dix mille te kartaa quatre cent mille lay jar donc bi dafa am ñu xam amatuñu valeur bi mais ñu jënd valeur quatre cent mille jox la ngay daraapee ka wee nga ba daanu dem solal say waa kër boo dee dëj ba lañ la dëj ba xajoon na ci yow dañ laa yëru am na ñoo xam ba ñu yore jakarta ba tey mosuñ cee mbëkkam weñ parce que xam nañ njariñ la ndax bu ndawee ba ngoon joxe dépense am ñoo xam kurtu kurtu ñu teg ba tabax ci ñaari néeg ñii takk nañ ci jabar ñii parce que xam nañ valeur ba mais kii moo moomu ko ayub xamoo ko musiba lu ci dal nga sonal ay nit yow doo ci benn njariñ kon di drapeer di wane takat li ma gën a soof buñ jubee ay nit pour ñu gis yaa a dawal mënoo du la sax xoolati am ñoo xam ne gis ko wax ne yor jara yakata di yor café di naan café xam saa rek ma dama yaba yàgg ma ne waaw ñii ndax nit lañu kaasu café doo taxaw naan sa kaasu café sa jël sa kii teg ci mbay ma dawal sa jakarta dem ak yor jakarta di téléphoné mel na ko ne ci oto jakarta du oto Euh, macha allah ah. <laughs> doy na waar jagartaa du oto ba tax na képp koo xamante ne yor nga ko rek bàyyi sa xel bu baax tali bi nit ñee ngi ci voiture yee ci nit ñaa ngi ciy dox seen tànk mais dérapé boobu defe naa ne amul sens musiba rek la lay daal di indil ndax tali bi ñagas na ñagas boo xam ne ku ci dal rek defe naa di nga xam ne fii nga dal wute naa mat laa ba ngay tëdd kon nañu bàyyi xel te jamono neexatul fi mu toll nii defe naa ne ku suur sa kilo ceeb mbaa ceeb bëgg caati bu bool bu dem ak fay ah dana doy de bàyyiwaat leen seen xel te li nekk ci hôpital yi kenn du ko jàngal kenn metti na lool kon xale yi bàyyi leen seen xel bu baax te ngeen xam ne kat dañ ne boo yaruwul ci biir kër gi soo génnee mbedd mi day daal di yar la tonton Ngari tey kon kilifa ni mu war a doxalee ci këram kon lan mooy solution yi. solution mooy bu la yàlla defee kilifa nga am ay soxna am njaboot dénkaan la daara la fexeel ba li la yàlla sant ñoom nga def ko mooy yiir leen te yërëm jubbanti leen teg leen ci aw yoon te du leen muñal parce que matuñu yow mi seen kilifa léeg nga juum kon loolu ngay juum ndax en tant kilifa asuma ak ñoom euh, te fexe xiirtal leen ci ak mbaax ak yoon yàlla gërëm da jar lu nekk nag su ma gisee kuy dóor doom dóor yu metti dama damay def may jaaxal man duma dóor dóor fajul dara day yàq parce que naa ko def rek bu ko dee mu dóor ma benn yoon te léeg nga dóor rey yoon xamatul yaa ko jur nit nga rey en tout cas léeg nga door damm yoon xamatul yaa ko jur da damm nit ceew la ñu teg loxo jubbanti googu nag jaratu ko parce que day am xeen diggante ak ñoom mais fexeel ba euh, njiit day day jubag waa këram day day day bëgg waa këram day suturaal waa këram bu ko defee bëggante am seen diggante muy ak njub faaw loolu ma ko waxee ci kër nag. Mhm. moo génn ci dëkk moo génn cim réew melel noonu. Euh, ñëpp nag mënuñu ànd ak yow ci kër gi parce que am ñoo xam ni say directive ak say say comportement doonte yaa leen jur nag d'accordu leen waaye waaye bàyyi leen noona parce que yàllaa leen bind noonu àndal ak ñoom ñëpp te seen wu melo ak seen jikko. est-ce que ànd boobu tey yomb na ndax da ngay gis kilifa gu nekk ci biir këram joxe dépense mille francs pour lan 2000 francs yooyu ñu def ko dépense yow nga bëtu ko dugg si dibitali ba jaay fa 3000 yàpp ñëw yor sa kir naa est tax say doom bëgg la. parce que boo jëlee deux mille ya ak trois mille day doon junni euh, matul yàpp bu bari waaye mënees na koo mbaxal sax def ci yàpp mu saf ñëpp mos ku ne am ci ñaari kuddam ak benn morso wàcc nga boroom kër nag léeg-léeg mu sàcc boppam borom kër nag léeg-léeg mu sàcc boppam de léeg nga dugg ci dibiteri nag gis sa bopp trois mille yàpp nag ndax gannaaw yaay wuti léeg-léeg nga gis sa bopp ci dibiteri yi boo xam ne yàlla xam na waaye nag dañ ci wutaat kattan ngoo taxawee loolu moom nañ la comprendre waaye ñuy naan fonde ngay lekk ganaar ñuy naan sombi ngay lekk dibi erreur la te tax boo ñibbisee war ngaa ruus baa boog nga jox keneen dibi dibi mu lekk ku bokkut ak waa kër ga boo ñibbisee war ngaa ruus loolu lépp nag ki du yëfi du yëfi njiit njiit day normaliser këram day bernde këram day day day def buñ ko bu tukkee sax waa këram namm ko mais am na paa yoo xam bu tukkee kenn du leen namm kenn bu li ko gisee baax na bu tukkee ñu feex mhm. kooku erreur la ah, loolu la bar na ci réew mi mhm. mooy doon gaynde kër xarum biti bu bu bu ne ci kër gi rek waa kër gi ab tiit mhm. ñu firi moustache da maam kuutar kuutar yi te te bu génne ay gone yi ndaw koy fecc dëgg la ko waxtaan loo yi ñàkk fayda waaye bu ñëwee ci kër gi rek fere di di fas kanam kooku pertement wu njiit la matoo ko da ngay nëbb waa kër gi sa bopp rek mais doo njiit mais pare yi nga gis njiit bu nekk ci këram tamit balaa tëdd rek ay njabootam yépp tëdd mu taxawaalu ba guddi mu ñëw taal otoom dugg ci biir kër gi wala nga gis kilifa boo xam ne pour mu dajale ay doomam ñu julli déedéet xamul sax ndax ñoom ñu ngi julli wala julliwuñu. yàlla da koo dénk njaboot tamatul njiit bala ngaa tëdd waa ngaa xam sa waa ka tëdd ñoom déet ba pare waaye booy yi léegi yëpp neexu ñoo tëral dañ lay tëral bu nopp ñoom jóg loolay ba nga tëj ñu ni kecc tijji ñu fes léeg seen yaay mooy tax ci mooy teg diil bi day am parfois léeg-léeg nga tere leen génn ñu ngi ci biir néeg bi ak mbàjj mi portable bi ña nga France ñii nga Amérique ñi dem nañu Angleterre sànq xam nga koo kooku mënoo ci dara da xëy su suba gis nañ ñuy ko wax nga ba sonn nga fekk ni ñoom ñu ngi ci beneen affaire loo ci man léegi nag internet te yàq suñu kër. mu yàq suñu njaboot mais daal balaa waa kër tëdd war ngaa xam tëdd ñoom déet. bu nu yeewoo ko ci feebar nga xam ku fi néewoon nga xam consulte sa waa kër avant ngay dem fenn mais nag am na ñoo xam mën nga yëg seen si seen doom yaa gën a de seen bakkan lañ ko teg teguñ ko fenn borom kër gu njiit luy añ yow dong teg sa benn bool tegal sa palaat sa benn ndox sa kër fële keñeen keñeen ci bool loolu duy fini njiit day bokk ak këram xam sukkal sa tànk bi bàyyi lekk di wax bàyyi li ndigg ndab li parce que yaa ngi leen dimbali ëllëg bu ñu yoree kër mais boo tàmmee ber ñoom it ko am kër beru te beru baaxul. beru baaxul ba tax na dama lay poser benn question rek maanaam tey comme ku amoon doom tey yor ko ci biir kër gi mu nekk doom joo xam ne dafa xaw a doy moo xam day tox moo xam day jël alalu jàmbur tey comme dóor daganul wala dóor jaaduwul nan ngay réagir ak xale boobu. Ah, ca yar bu ndaw ba la danaan jël ay dërëmi jàmbur nga bakku boo dencee fukk mu jël ko nga bakku boo dencee mburu mu lekk ko te doo ko wax dara day dem ba mu yaakaar ni jël ngay papa juy tux sa doom gis la ngay tux léeg-léeg sax nga ko am ta tegal ma ko ci ci ci xal boobu bu yàggee tex léeg-léeg mu muqi mel na yow parce que yaa ko jàngal yoon woowee boo ko dóoree ngir day jël mën nga ko gaañ parce que day doon dóori yéene mais dafa laaj consultation ngeen dugg ci ruq nga ne ko jël àll jàmbur baaxul waxuma la fii mais yemal xiyam baaxul soo jëlee àll jàmbur la jàppee da ngay dem prison mën nga faa def ay at nangam ak nangam ci yooyu ngay jàpp su demee nag ba nga xam daf koo defee nag moo ma neex di julli fi jàmbur nag nga déclaré ko nag fañ ba xam ne di benn wala commissaire sama doom ji di jël fi jàmbur te bëgg mu ëllëg mu jël ko matière yi impliqué wu kaay lijjanti parce que bu ma ko soo ko dóoree gaañ ko jël si la bala ma koy dóor di gaañ ji ngeen bu may jël si seen ko parce que booba wax ngaa wax ba sës wax ngaa ak ay nijaayam ak ña nga war a waxal lépp jéemul ci dara jéemul dara dénoncé ko su nee ci kër gi tux yàmbaa di mbëkk nit ñeeg ku ne mu seret ci la ndax yambaa ja wax ko parce que mën na ko denc ci kër gi police ñëw ñu fekk fa yàmbaa yéen ñëpp ay dem damay gannaaw si ku ne ci gone yu jigéen ñi jëloon xotoo ko def yëf moom dinaa la teel wax bàyyil gone yu jigéen ñi ngay ne soo ko defu ma dénoncé la parce que kilifa noonu lay mel sinon ëllëg da nga taxaw péeki goo xam doo yow da nga yaakaar lii amul ci àddina su boobaa yoon yow lay waxal kon luy dafa am ci yar bu njëkk dañ koy teel a dindi waaye ah defu ko de dañ koo yeb rek ñaar dana ñoom jël nangam nang bay dem ba jël ñaari junni dem ba jël deux millions ñi ngi gis ci nguur gi ñaan la daañu sàcc ay milliards bu dee dëgg ci bari gone la xam na ci ñoo xam ne boo leen dénkoon ñaari fukki kees yi milliards seen yoon new ci parce que yarewuñu leen ko mooy sa doom di dem service nga ne ko yaa ngi xëy tay de mais attention ngor jom ak fit ñetti baat doy na ci ci as heure bu nar a def danger ah sama papa ñëwoon na ma nangam. sama yaay ñëwoon nangam noonu yore doom. mais amal fulla service ba waaw waaw oto bu xënt bu ko fi dawal yaa ngi koy indil lekkal xaalis ba. bis bu nu ko noos nag. nga ni saa wujj waa ko liggéey dañ koo xarfa xoofa. borom te fekk yaa ne ko sàccal. ban jàpp ko. macha allah yaa ni ko sàccal ba ñu jël si ko te defe naa ne sa doom nga jooyloo ko moo gën mu di la jooyloo mm-hmm. te defe naa ne doom bu ci nekk yaayam bu sañoon mooy gën ci doom yi kon xale yi xoolal leen fi ngeen di teg seen tànk bu baax a baax ndax defe naa ne jamono bi ñu toll sax yaay ku xëy yaa nga uti papa yi tamit noonu kon yéen ñi nga xam ne ñu ngi leen bàyyil ci kër yi ku xëy xale bu xëy jàngil soo jàngil école demal nga jàngi ji métier am yar am teggin xam fi ngay teg sa tànk ndax buñ la yarul ci kër gi nañ la yar bis boo xamante ne nii di nga yaakaar na yàlla yow kese la bind ci àdduna bi kon bàyyi bàyyiwaat leen seen xel bu baax a baax te ngeen góorgóorlu xam ne xale moom lu dul yaru rek bu nekku ca moom defe naa ne yàq nga sa bopp kon bàyyi bàyyiwaat leen xel bu baax a baax tonton Ngari dafa mel ne li ñu amoon ci waxtu nag fi mu toll nii jeex na mm. lan ngay tàggatoo waaw gërëm yàlla sax borom euh, di joxe benn message yu mm-hmm. li ñu dégg muy dina am yàlla rek la wóor du am yàlla rek la wóor ka cay bokk yàlla la wóor ku ci bokkul yàlla la wóor may interpellé ñi ne ci internet bi di waat alquran di waate yàlla di waate yonent bi ni diw day bokk diw du bokk déjà seeni wax a ngi dellu ginnaaw ku ci am jabar mu xeeb la parce que xam sama papa waxul dëkk mu fen nga quoi Cheikh fen nga day ree rek dem eh, papa yaa ma dàq fen la nga wax démb dër amu ci du la ko wax nag publiquement da nga xam ni fen nga te lu yàlla def am na lu tax mhm. Ousmane Sonko bu yàlla ne du bokk ci yi du Macky Sall de mhm. du justice yàlla ni bokkul lam koy xaare nag dënk ko ko yàllaa ko xam mhm. xasum ne yàlla xasum def am na lu mu ca taf ñu bàyyi yàlla ki ay mbiram Sénégal doy dem bëgg bëgg jël place yàlla bëgg a dogal ci place yàlla dé da ngay erreur yàlla wul lool de kon nag moom la wax gis nga sa saag bee li may xartu yow yëpp bu ma ko bëggoon ubbi nga bañ même bu ci dara nekkul nit moo buggul ku dugg ci mbóotam waaw dañ ndëgam nit a bëgg loolu ah, sama yàlla ngay dugg ci business am moom kon ñii def élection présidentielle suñu waxtaan bii ñoom ñoo ko moom nit yombul kuy campagne waxal dëgg booy yii ma gis moom ku ci waxul dëgg am nga soxla ndax te la ko wax fan kenn taxaw ne la yaa man a kàcc fii nga taxaw nangam nangam dara lu ci dëgg te su boobaa doo ko doon parce que yaa ko waxoon lu ay wax na leer njiit yi su ñu demee nag ba ne ñii ñoo war a dem nañ nangu ne ñoo ñoo war a dem parce que les sept sages ñooñee lañ gëstu seen këyit ñu ma parce que mënuma d'accord suba ngeen justice am na gannaaw suba ngeen justice am na déedéet su na kay dalaa laalul fa mu la neexee laal kee fa mu ko neexee parce que yàlla mais mais yow maam ma dem nañu bokk ndey ak bàyyi may sama nga xëy suba yàlla jox la ay milliards te ñu bokk ndey ak bàyyi man yàlla joxuma sa xewee may dawal damay dox léegi bëgg a jugé fekkee ñu ñaar toog yow la ñu nuyu njaay njaay njaay ah sëñ bi da nga def yow gën naa laa gis nga ne maa ngi fi di di xoggale ko yuroo di moom mooy yàlla ñun la bindi kon nañu muñalante campagne def ko ci jàmm su amee waxtaane ko ci jàmm du ma wax que le meilleur gagne déedéet ka yàlla fal jox ko pourtant bis bu ne meilleur am xam nga su ma jox meilleur fi mu nekk nii ñaar laa koy jox ku ñuy wax sëriñ géej Diop la maire de Sandiara sama maire def na sànjara commune boo xam ni commune émergente kenn defu ko ñaar yi mooy saajo maane ku mel ne moom ci ci defar ab dëkk bu kenn xamul woon nga fexe ba dëkk ba nit ñi tuuxu si fa kan la. ah boo doon jox kay lay meilleur ngo mais yàlla bu joxee njiit am na lu tax mu jox ko ñu ko nangul yàlla li tax maam ma ne ma ne man du ma opposé wu ku opposé wu nguur opposé nga yàlla parce que yàlla fal nguur lu tax ma koy opposé damay xaar ba ma wut su ma wutee ma yàlla joxe ma am bu kenn rey puune bu kenn rey ak gone bu kenn rey mag bu kenn jam kenn bu kenn wuti deret kenn bu loolu ay biddaa la nguur la koy joxe duy deret pal la gu yàlla fal te ku yàlla fal teg na la coono président de la république ku baax lu baax ñu ni ñuna réew mi ko ko jox su bon ñu ni yaawa président Macky Sall lu ko waaye mën a waxali il a beaucoup fait Sénégal tey bi ma rombee kaar bu bees bi taxaw fii ci cox coxno kaaru senegal di mu dégg sama xol bi ay see dugg parce que man foofu lay duggee kaar ma ne bu bees dikk na waaw mais yooyu rek doy na te li daara Jolof bii nga ne nongu jëm ba lingeer mhm. bu la neexee d ataay ci oto oto bi daw nga ngay aucun risque waaw loolu doy na doolu doyul ñu ñuy deful dara def na dara kay li mu defa doyul waaw yàlla min wàcc fi da bëgg nga milliard yow man bëgg na sama jarbaat bëgg na baa jox na nu milliard pourtant jox na ñoo xam nu ñoo leen mag est-ce que tax na mu naqari na nit ñu di muñ kon nañ sant yàlla sama borom te yàlla mu mu musul ci bépp musiba ak balaa di ñaanal xale yi jàng nañ gën a jàng maama dem xale yi jàng waaye gaal gii ay risque la deew ñu fàtte nañ leen Sénégal daa gaaw a fàtte si xam nga ci loolu ñi deewoon jamono yi passé ca xeex ba ñaata lañu woon vingt taxaw ba naañ mm-hmm. kenn tudd leen ña dee 2021 kenn tudd ci gaal gi kenn tudd leen kon nag jarul dugg gaal suñu jàmbaar yi nga xam ne ñoo nekkoon ci géej gi di uti ay gi barki démb ca ca min ba mm-hmm. kenn tudd Sénégal daa mm-hmm. léegi nag yooyu yi dugg gaal du ko jarul ku ne la nga ne na ca ba yàlla dikk kattanam dikk sa gëm nga nga parce que ñëpp a tekki ma dégg nit ku tekkiwul ñëpp a tekki parce que wala xat de karat naa benn aadama tax ñëpp a tekki yàlla amul lu bon yàlla amul lu ñàkk nit ñi kay ñoo desee ci ab xaalis am na loo xam bu la neexoon bu subaa boo ko defee ci guddi gii bu subaa nga am milliard hmm? barke borom Tuubaa ah milliards yu bari seen borom bëgguñu ku dee ndeysaan du jeex hmm. mais nag am na ñoo xam dañuy wax ni ah est-ce que du ma ko am samedi dee dimanche. dëgg la na sóoraale. moo tax bëgguñu ko. Mhm. ñu ngi xaar yàlla wërsëgal. Mhm. kon yàlla defal dëgg ak topp yàlla suturaal nu. Mhm. ñu ngi jéggalu kàddu yi su guddee tey moom man maa maa maa conférence daanaka <laughs> ah ci thème bi dafa am solo tey. bu eh. fekkee mën nañ koo tàllal yi ñëwit nañ ko tàllal de. incha allah parce que ñii foog ñu wax ak ñoom. bala ñuy yaakaar réew mi fowukaay la. réew du fowukaay incha jërëjëf euh, tonton Ngari ci waxtaan bu am solo boobu ñuy bokkoon fii muy leeral TV leeral point net émission aada ak cosaan ma koy def ak yow dimanche bu jot tey nag ndey ndeyaa ñëwul ndax dafa feebar ñuy ñaan yal na yàlla fëgg boppam bu baax a baax a baax di ñaanal képp koo xamante ne nii rek yaa ngi nekk si àdduna ñu ngi lay ñaanal jàmm di ko commencé ci samay waajur di leen ñaanal jàmm bu baax di dugg sama famille yaay famille mbër gu bukki Jóob maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax jàmm ak salaam di ko commencé ci sama maam Baye Jëng Jóob ba ci Baye ma soxna Baye ma penn ñoom ñëpp ñuy waajal nag suba tuuru famille famille boo xamante ne famille bu bëgg seen bopp la famille bu baax famille bu soppante bu bëggante muy am suba fee ca njàng ñuy ñaan yàlla nañ ko defee bisimilahi rahmaani rahim eggalee ko alhamdulilahi rabil alamin te yàlla bu mu nekk suñu mujjantalu tuuru famille ñuy ñaan yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm may nuyu waa àdduna yëpp bàyyiwuma kenn di dem ba sama ko nouvelise di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di ñaanal ñi nekk ci internet bi te wax lu baax yëkkati leen maa ngi leen di ñaanal jàmm ak gudd fan di ñaanal àdduna yëpp bàyyiwuma kenn malade yi jamono bi ñuy koo xamante ne am nga ko wàññeeku sa kër maa ngi la koy jaale di la ñaanal jàmm Ibou Yaraax ñu ngi lay jaale sa yaay jooju suñu maam suñu xarit ca Yaraax ñu koy ñaanal yàlla na suuf oyof ci kawam ci barke Seydina Mohamed ma koy jaale sama waa famille baax a baax a baax di ziyaare sama famille bi nga xamante ne mooy sama kër maam lébu ga maa ngi leen di ziyaare bu baax li ko commencé ci maam Mbagnick ba ci bàyyiwuma kenn ba ci man mii nga xamante ne maa ci gën a suufee di ñaanal ñëpp jàmm ndax àdduna jàmm moo fi xaj àdduna jàmm moo fi neex ndax defe naa ne jamono bii ñuy wax ni su fekkoon ay bala ngi tàkk wala musiba di am man dinaa tal leneen keneen ak keneen dina tal leneen kon nañuy ñaan jàmm di xëcc jàmm bu baax a baax di wax xale yi liggéey leen ñii liggéey liggéey leen góorgóorlu téye seen i loxo xool fi ngeen di teg seen tànk mais xale yi nga xamante ne nii tamit ay élèves lañu. dañuy jàng nañu góorgóorlu comme ni ko tonton Ngari waxee léegi rek nañu jàng bu baax a baax a baax jàng leen ndax sa yaay jëndal la ay kaye jëndal la big solo la yére nga dem di def na su dul noonu doy na waar kon jàng leen bu baax a baax élection yaa ngi ñëw xale yi seen yoon nekku ci bu leen lijjanti ñay élection seen doom yaa nga Europe ña ngi wootee ak ka ñuy fal soo xamoo sax fu mu dëkk kon jël leen seen kaye ngeen jàng góor góorgóorlu ngeen muñ kon yàlla na yàlla def si àdduna bi jàmm may dem ba Touba di nuyu sama waa kër maam di leen ñaanal jàmm bu baax a baax bàyyiwuma kenn mais nag du ma fàtte fi nga xamante ne fi laa nekk ndax mooy fan leeral TV leeral point net ñu def fii nag ci kër gi émission aada ak cosaan di ko def dimanche bu jot nag tonton Matar sama xarit maa ngi lay ziar bu baax a baax fàttewuma la yow tamit sama nijaay sama xarit di la ñaanal jàmm bu baax mais murit kenn di yow ci biir kenn du tonton Babacar bi nga xam te ne moo toog fii nekk si technique bi suñu ñëwee ndox mu sedd beeg lépp tey am njóobeen la de kon ñu ngi koy ñaan a jàmm bu baax a baax a baax tonton xale tamit ñu koy ñaan a toogoon fii dimanche bi di passé di ñu fi ay yàpp yu neex a neex te gisuñu dara xamul nga naa la feeñal kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di sàkku ci ñoom jàmm di ñaanal samay doom yëpp nag yàlla na leen yàlla sàmm suturaa leen def leen ay magi islam ci barke Seydina Muhammad man mi tamit yàlla na ma yàlla musal ci accident làmmiñ may ma jàmm may ko képp ku nekk ci àdduna bi di leen jox rendez-vous dimanche ci Leral TV Leral point net émission aada ak cosaan 15h30 merci nekk leen si jàmm ale ciao